raca gi dugg na sama kër boole ma ay riya raca gi ta raca gi ta iwa raca gi ta ta ba rat riya eh, eh, eh, yow daay na nga kon man nga naa sobaal da ngaa xam li may yëngu ba ma sobaal. xale correctement nekkuma fi ma ram ngay ràjj rek yow loo bég bégee seewu xale foo da yéen ma ne maa yor animal nii ngay foowee sa plaisir bopp nga joxe waaye du li ma daal bu la daloon nga déliré xam nga jee asu sare jee asu sare moo ma yónni l'international réa ma yoon ngay la damaa jom mi xët la ma def taaw ma ni tip xam nga nu ñuy defar xaar ma ma dem récupérer ko may la la ma la ci may yow xam naa ni noo partage damay dem ci toogal wàcc si ñàkk bi soulager sa bopp amul lu ko gën a gaaw xaalis may soulager wu dama koy jël ma ñëw li ma lay wax fii nga toog nga jot xaalis bi duggal Collé li ngay wax dëgg sa téléphone mu gaaw affaire bi amul yàgg-yàgg ndax moom ay mbiram dafa gaaw waaw nu may def defal dièse 144 dièse duggal réception internationale réception internationale voilà waaw léegi jëlal code RIA bi tàppe ko ah waaw mu ñëw ci sa orange ne directement nga recharger ko directement sans hésitation ni déplacement ni. ña mooy koo fawoo di. Ah, ah wàcc na sama compte. mi ngi noonu léegi laal ma dix mille. mooy yow Kole yaa tuuti xol. ah, ah li ma li ma naroon paase dama koy déglu ñaari junni laa lay. waaw ñaari junni mooy ñëw kontaan nga kontaan bu ëpp di. loolu la ñaari junni mooy dix mille tubaab day wàññi xaalis ñeenti junni laa lay. nga ni si olof la gën a bare wala ñaari junni ak dix sa sa sa numéro bi nga yor ba tey. waaw yow waaye ah, damaa bëgg lu wóor rek. sa kontaan bi nag ëpp na. mooy yow yow kon kañ kañ nga dofeel. ci la yaa ñàkk wërsëg. nga ni waaye demal foofu yow da ngaa kii palaafoné. da ngaa palaafoné amoo lii lii mënumaa dal. amoo sax ñaari junni suba teel ñeenti junni suba teel gi. waaw. amoo saa. xaaral ma dem ci. eh fan nga jëm Kole. cantine bi. xanaa lebaloo ma taraanga dama la koy fay. waxal kon bu mu gaaw nag. eh da ngay def naa ko dama lay doose nag am nga application Orange Money. loolu kenn waxatu ko bi ci defe naa. fa ngay dugg xam nga naa defa sa carte d'identité rek lay laaj. <laughs> devant derrière nga déplafonné wu na ca kaw. <laughs> man maa ngi ñëw nekk ca kaw. Kole foo jëm. sama kàlla laa fàtte sama kër. sa na def daal danaa la koy fii moom fii yaa ngi génn ma di fi toog daa fii yaa ngi génn ma di fi toog de dinaa la ko wax moom tey sama mbir gii moom man damaa toogul sax fekk yu def yéen rarada gid gid rarada gid gid ca gid gid ca gid gid ca gid gi ca gid gi ca gid ay waay gid gi ca gid gi ca ay badaro gid gi ca gid gi ca gin ki cak gin ki cak gin ay waaw gin gin gin gin cak gin ki cak gin gin cak gin ki cak gin ki cak gin ay waaw gin ki cak gin ki cak gin sama patron gin ki cak gin ki cak gin ay waaw demal nga rangé wu allez salaam Aliou may qui ne pas comprendre la la suite de ce livre là baal baal non dinaa jàppale ma rangé wul allez ay allez génn génn génn fa allez demal ñu bi demal demal demal demal demal demal demal di jàng di jàng phase wëndeelu bi nii Tom gis nga fii bi